dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi lu ñu waxul Macky Sall ak ñi mu àndal dañu ko fàtte wax nañu ci lu jëm ci àq ak yelleefu askan wi ni ñu ko salfaañe ci réew mi wax nañu timit ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi ni ñu leen di traqué di di bunduxatal di leen di jàpp di leen di dugal ci kasu bi loolee député yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi démb ñaawlu nañu ko ba fa ñaawlu yam ñoom su Souleye Diop nee nañu lu jëm ci wàllum liberté askan wi dañu ko salfaañe ci réew mi wax nañu tamit ci Ousmane Sonko mi nga xam ne ñoom jàpp nañu ne dañu koy jaay doole détenu politique yi loolee tamit wax nañu ci député coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu élection présidentielle ministre Antoine Diome di ministre de l'intérieur du ko organiser te nag loolee maanaam ba ñu ñu ci dara ba ñu ñu ci nobbu ñu sañum ngeera yéen gii di Vox Populi Birame Souleye Diop daat nay wax ne am na lu toll si ñeen fukki ndaw ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi Le Quotidien Ousmane Sonko daf ciy bokk te nee na Ousmane Sonko mooy seen candidat yéenekaay gi di Libération xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko moomu nga xam ne moom ngeen di wax ne mooy seen candidat jamono jii lu jëm ci wàllum wér gi yaramam sooxe na ba fa sooxe yam te Ousmane Sonko ma ngi nekk animation waaye nag Ousmane Sonko jamono ji dafa am leneen loo xam ne dafa ko saa yokkoo nee na jamono ji bu ko kenn fàcc loole moo tax wér gi yaram Ousmane Sonko jamono ji gëllu góose naay waaye nag journal bi nee na du Ousmane Sonko rek ndax Hannibal Djim ak Serigne Cheikh Bara Ndiaye ñoom tim jamono ji ñoo ngi nekk réanimation waaye nag nee nañu kenn ca Ousmane Sonko nee na bu ko kenn fàcca Cheikh Bara Ndiaye nee na bu ko kenn fàcca Hannibal Djim nee na bu ko kenn fàcca yéen kay gi di lay seko ñu koy fekk fa maître Ciré Clédor Ly nee na nag jamono ji maanaam am na tiitaange am na njàqare ci wàllum wér gi yaram Ousmane Sonko loolee kàddu yu maître Ciré Clédor Ly la nee na tiit na lool jamono ji maanaam ci tolluwaay bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko toll ndax wàllum wér gi yaramam jamono ji gëllu góosa la ba fa gëllu góosa yam yéen kay gi di Source A xëy duñu xibaar naan ñu coalition Askan Wi tey ji ab délégation dina jóge ci ñooma dem su Touba Seydi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yéen kay gi nee du ñàkk ñu waxtaane fa lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko waaye nag nañu yónni yàgg ba xam Serigne Mountakha Mbacké dina intervenir lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko ci Macky Sall yéen gi du source moo ci xëy nee na en dina am délégation boo xam ne délégation coalition Yewwi Askan Wi lañ fas yéene dem ca Touba yéen gi dale ko di yor yora ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop dib avocat double nationalité yéen kay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu bi nga xam ne moo jëm ci wàllum code électoral bi te ñu modifié woon ko journal bi nee na promulgué nañ ko jamono ji Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall seen ginnaaw ba nang ci élection présidentielle 2024 maître na ko déggoo ma Karim Wade génnagul ci mball gi yéen gi di Source A xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall ji ba léegi tànnagul ab candidat boo xam ne bëgg bi maanaam ñaar a ba ñaar fukki fan ab candidat waaye mbir mi lu ñu dem mbir mi gën a ndax ñi nga xam ne njort nañu ne candidat la ñu doon ñooñu dañuy gën préparé wu dañuy gën am temps te nag mbir mi lu mu gën a mbir mi gën a ci Macky Sall journal bi du l'Observateur xëy di ko dëggal nee na jamono ji ay compliqué communication moom moo am ci lu jëm ci Macky Sall kan lay tànn gars yi ñoo ngi def ay lobby gars yi ñoo ngi dajee si suufa gars yi ñoo ngi jàppalante ci suufa te nag du ñàkk ay conséquences daal di ciy am bu Macky Sall ne diw laa tànn yéen gi di l'info xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay intellectuel ci réew mi am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dal nañu ci kaw nguur gi ba seen xol sedd ku ci mel ni Felwine Sarr ak professeur Serigne Diop mi nga xam ne moom ab pétition la taxawal moom ak ñenn ñoo xam ne ay intellectuel lañu ngir nag ñu daal di libérer Ousmane Sonko Felwine régime bi dañoo salfaañe nappaaje li nga xam ne moo jëm ci wàllum yoon ci réew mi te ñoom gis nañu ne képp koo xam ne da ngay opposé Macky Sall ak régime bi maanaam dañu lay teg fitna say nañu laa jàpp yóbbu la ci kasu bi te nag loolee moo jaaduwul professeur Serigne Diop ak ñeneen ñoo xam ne jamono ji sàkk nañu ñu libéré Ousmane Sonko ndax ne nañu tamit décret bi nga xam ne génn nañu ko tas parti Pastef loolee dañu ko war a retiré dañu see wala deltu ginnaaw te ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci kasu bi ñooñee tamit dañu leen a wala libéré yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan lu toll ci 142 ñoo xam ne ñoo taxawa ngir nag ñu libéré Ousmane Sonko yéen kay gi di la témoin ñu xëy fekk fa Mame Boye Diao moom nee ñu ko tànnee ak bu ñu ko tànnul ak bu deltoo ginnaaw ci candidature bi bi nga xam ne moom la ñu ko nommé moom Mame Boye Diao nee kenn du ko tànnal ay xaritama bu ko neexee nekk xaritu ñëpp moom Mame Boye Diao nee na bi jamono ji li ci am doy na waar ndax mbirum animosité moo ci am mbirum mbañeel te mbir mi wër te demee noonu yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Pathé Ndiaye mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon directeur général bu port autonome de Dakar wax na ci lu jëm ci wàllu mbëkk mi maanaam Barça wala Barsaq gi daan wax ne bëri na ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci biir ndox mi te nag li ko waral mooy lajjite gi nga xam ne am na ci politique publique bi ndaw ñoo xam ne bëgg a dem Europe jàpp na seen i jafe-jafe foofee lay saafara woo ndax bëri na ci ñoo xam ne ci wàllum géej ci la ñuy dundoo seen i activité te jamono ji mbir mi demul céng dikkul mbay laa yéen i kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum gaal gi nga xam ne moo jige woon Fass Boye am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ñoo xam ne ay rescapé andi nañu leen ci réew mi jële nañu leen Cap Vert am na ci kenn koo xam ne fa la ñu ko bàyyi day fajo waaye am na si juróom-ñaar ñoo xam ne fekk nañu leen ci biir gaal gi maanaam ñu commencé yàqu fa la ñu leen suula yéen i kaay gi délibération nee na ci diwaanu Maroc foofee rapatrié tey ji lu toll ci trois cent vingt cinq sénégalais yoo xam ne dañoo doon dem bitim réew far seenu gaal daal kalu fi nga xam ne mooy Maroc yéen kaay gii de la point xëy duñu xibaar naan Sénégal am na ndam ci diwaanu bitim réew ndax Omar Ba mi nga xam ne mooy maire bu Ndiop nekk njiitul association des maires du Sénégal moo nekk jamono ji njiitul assemblée générale du conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA moom ak maire bu Cotonou ñoo ko doon jàppale di Omar Ba moo tax gagné na mbir ma yéen kaay gii de la sa xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Kër Moussa foofee scandale ma fa am ndax dafa am benn promoteur boo xam ne moo fa bëgg teg loxo lu toll ci quatre-vingt-dix hectares yéen kaay gii di Walf Fadjri xëy ñu xibaar naan ñu màggalu Touba gi léegi tey mu yegg si waaye Touba jamono ji fees na dellu kum ndox yéen kaay gii di évidence xëy di ko dëggal ne moo ne day ay milliards la ñu wax ne moom la ñu fa dugal te dëkk ba jamono ji ma fees dellu kum ndox